merci beaucoup euh, je m'en vais d'abord euh, la première question question disant que ni euh, Yewwi Askan Wi la coalition existait tout là je vous dis njuumte bu rëy la ndax euh, la coalition Yewwi Askan Wi dafa ŋàng ay parti ay leader politique yu nga xamante ne dañu fédéré seen gis-gis fédéré seen yéene pour le Sénégal bi nga xamante ni tey ci dafa nekk ci njombe au moment où la population sénégalaise <clears throat> espère des lendemains meilleurs te amugun ko coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi fédéré seen pexe seen xam-xam seen mën-mën pour mën leen may loxo ñu jug taxaw d'accord euh, pour dire que euh, le président Déthié Fall aujourd'hui n'est même pas outsider je m'en vais vous demander qu'est-ce que vous entendez par outsider qu'est-ce que vous voulez dire par là. mooy koo xamante ne gars yi suñ ko poussé mën na gagner. est-ce que ñun potentiel potentiel vainqueur par exemple. bon euh, ñun dañuy ñaan yàlla le président Déthié Fall mi nga xamante ni tey jii ak le contexte actuel euh, ñëpp xam nañ ni c'est le leader incontesté et incontestable bu gën à la tête du pays le Sénégal. en 2024 mais ñi ma wax le contraire c'est pour pour un Sénégal bon à vivre et beau à Pourquoi un Sénégal bon à vivre? Parce que le Sénégalais aujourd'hui a besoin de se sentir chez soi. richesse yi nga xamante ne yàlla sunu borom jagleel na ko mu sentir ni moom ci la bokk ana oru Sabodala bi nga xamante ne moo na ci réew mi est-ce que sunu jigéen ñi ñu ngi koy sentir le gramme de l'or coûte combien je me rappelle en 2009 gramme or mi ngi woon jar ay 8500 8000 9000 ñuy jàll di jàll. ñu ne or am na ci réew mi boobu exploitation bi ñu ngi ko doon wax rek dañ ko doon ruumandaat mais démarré gul un instant s'il vous plaît laissez-moi terminer parce que li may wax c'est extrêmement important c'est d'une importance capitale bu ñu ñëwee ci loolu ba léegi ñoom gisaguñ ci seen bopp les recherches halieutiques bi nga xamante ne moo nekk tey ci suñuy waax les licences de pêche est-ce que tey jii nii yow vous avez la latitude de commander tey ne ceebu jën jënu coof laa bëgg amoo ko dépense bi nga xamante ne moom nga joxe sa kër vous vous contentez de ça li ñu la tegal loolu ngay consommer vous savez pourquoi parce que tey la nga xamante ne moo nekk sa poche ça ne vous ça ne vous permet pas sa pouvoir d'achat tey moo tollatul foofu te par contre Sénégal 92 Stade Amitié fii on se rappelle bu ñuy jàngi école à l'école euh, di def primaire attends da ngay reeree fii riir di war a yeew suba teel jàngi ñu sandwichal la sa mburu doo taxawaale si mbedd di jënd ay ñamu mbedd non amul mais tey xale yi mënatuñ ko dund dans les maisons je reviens non attendez parce que dafa laal aspect économique de façon latente de façon latente mooy de façon cachée xam nga tey bu ñu la poser question y a la forme il y fond sur la forme vous pouvez vous pouvez voir am voilà non non non parce que dafa am importance bu fekkee danga ko bëgg a élaguer de toute façon dafay ñëwaat. allez-y allez-y Pape laissez-le terminer. non mais c'est pas ma question. mais il viendra à votre réponse. Ah, voilà maintenant maintenant maintenant maintenant xam nga dafa am lu ñuy wax argumentaire. léegi argumentaire nit ki bu la neexee bu fekkee bëgguloo ko dégg là daf lay déranger te alors que je crois pas que je sois là pour donner ou bien proliférer des argumentaires qui puissent le déranger à moins que voilà parce que je suis là pour le parti républicain pour le progrès qui prône un Sénégal de rupture qui prône un Sénégal bon à vivre et beau à et quand on le dit il faut un argumentaire solide qui puisse convaincre les Sénégalais aujourd'hui okay, qui doivent donner leur carte pour le parrainage au président Déthié Fall, qui doivent mettre à disposition leur carte pour, le, pour que le président Déthié Fall euh, en 2024 soit le chef de l'État du Sénégal. Maintenant, en ce qui concerne la question de est-ce que le président Déthié Fall tey dafa soxla pour ñu pousse ko bon c'est une question euh, doomu aadama nee nañu lu benn mën ñaar a ko ko dàq c'est vrai le parti républicain pour le progrès parti ne va pas seul à l'élection présidentielle dafa am ay mouvement ay association ak ay yeneen ki yeneen ay kuréel yi nga xamante ne dañuy ñëw jàpp ci mbir mi parce que dañu gis ni ñoom seen vision ak la vision du président Déthié Fall ça va dans le même sens seen yéene ak seen seen seen seen pas-pas bi nga xamante ne moom lañu ñu yéene pour le Sénégal pour que sénégalais gis seen bopp ça va dans le même sens raison pour laquelle outsider boobu noonu ngay wax aujourd'hui bon c'est une question qui est là on ne dira pas bon voilà non